AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV xor rahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-uda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisani waxlulan min xulun xad wa shalhu dakiran wa shakiran abada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 di ci sant sun borom bu baax a baax di ci sant Cheikh al Xadim eh, ngir xam nañ ne liggéey bi mbokk yi wax dëgg yàlla eh, safoo nañ ko teyit ñoo ngi ci mm, gunge te liggéey la boo xam ne nii kat moom rek lañu fas yéene liggéeyale Serigne Touba te lépp jëm ci lislaam lépp jëm ci alquran jëm ci xam-xam jëm ci jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir eh,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 wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci kenn ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba nekkoon nitu tasawuf nekkoon ab majsoob nekkoon tamit euh, ku bari ay xikma ñu koy wax sëriñ Mor Khady Sy doonoon magi Serigne Malick Bassine si ñu bokkoon lépp àndoon dem ca Serigne Touba jëbal ko seen bopp 1905 ca gànnaar ca Xumaag sëriñ Mor Khady Sy nitu tasawuf la woon waaye ku yéeme la woon ay waxam nag da ko daan tënk nit ñi nag daawuñu ko mën a xam waaye buñ ko bëggee xam dañ koy laaj rakkam sëriñ Malick Bassine si mu firil leen ko sëriñ Mor Khady Sy daana wax ne daana wax jàpp jàpp wacci wacci def def di ko baamu jàpp jàpp wacci wacci def def buñ ko laajee sëriñ Malick Bassine mu lim ci jublu mooy jàpp leen ci yàlla bara leen a jàpp. wacc leen àdduna bala leen a wàcci def leen ci bàmmeel bala ñu leen caa def wax yooyu nag bu ci nekk mën nga koo delloo ci alquranul karim ndax alquran ka day wax ne dee de bu ngeen koy daw waaw dee mi ngeen di daw dangeen di taseek moom te kat ku génn àdduna la nit ñi njëkk wax mooy nañ ko fexee jébbal boroomam kon nag suñu boroom kenn mënu koo daw kon nañ ko jàpp bala ñoo jàpp qul innal mawta tafir tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum delloo wax ne bu ngeen nekkoon ca euh, palais yi ëpp sécurité ci àdduna itam dee moom dana leen fa fekk aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada euh, bu fekkee nag wàcc àdduna la itam alxuraan dafa ñuy wax ne rikk waay fexe leen ba bu leen àdduna war fala taxurrannakumul xayaatu dunya dund ak àdduna kon luy ware la kon àdduna ku ko jàpp yaa ko jàpp waaye moom jàppul kenn te it ñëpp lay ñëpp lay wëcc ñëpp lay wor sëriñ Tuubaa yi daanañu wax ne addunya mamarrun wal axiratu hiya al maqar adduna day fu ñuy jaar di jàll la waaye saxukaay ba nag mooy alaaxira bu dee ñetteel bi itam alxuraan moo ko wax ndax suñu borom tabaaraka wa taala day wax ne lépp lu ngeen dawal feret ko mu ci aw yiw da ngeen fekk seen borom tegal leen ko fa bu ngeen ñëwee man koo jariñoo kon nañ def ci bàmmeel bala ñu bala ñu bala ñu saa def wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah Sëriñ Tuubaa itam mas naa wax ne man day suñ borom jox na ma mbalaanum sutura moo xam ne ne ku nekk ci àdduna di ci sàngu waaye mbalaanum bàmmeel ku ne yaa koy ràbbal sa bopp yooyu daana ci soññee ba tàyyi waaw te bàmmeel wéet na lool te xat na lool waaye lu mën a yaatu la te mën a leer yàlla na suñu borom tawfiixale ah, ba tey ci wàll googu yi muy dawal dara ngir nga fekk ko fa mënees na koo misaal ci tukkikat yii di tukki ndax ku tukki woon day nekk ci réew ma nga nekk te loo am lekk ko wala nga noose ko bis boo ñibbisi fii de poos yi neen nga fi àndaale waaye doo fi fekk dara wala fi sax dinaa dañ daan wax ne ku tukki di buur boo ñibbee di baadoo la kon nag nañ xam ne fii ab tukki la buñ fi ñëw dañoo war a ñibbi ca kër ga te mooy àllaaxira moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi daan daan yee jullit ñi ci na leen addunya sijnul mu'mini wa jannatul kaafir adduna kat kasob jullit ñi la tey àjjana yéefar yi kon nag buñ ko jàppee kër moom it waxaat na ne àdduna kat kër ku amul kër la te ku amul xel rek moo koy dajaleel addunyaa daaru man laa daara lahu wala ha yajma man laa aqala la moom yonent bi sallallahu alayhi wa daana ko wax kon nañ farlu ci yeete yi nga xam ne nii mag ñi daanañ ñu ko yee te lépp ñu mën ko delloo ci alquran man koo delloo ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa man koo delloo ci wax cheikh al xadim yàlla na la su defal dégg ak topp